ci ñëwaat ak yéen ci tooy alquranul karim ñëwaat ak yéen ci njàngaleem lislaam ñëwaat ak yéen ci tafsirul quranil karim mbokk yi ñu ngi wala yéen ci suratul xujuraat suñu dars bee weesu jotoon nañoo leeral ñaari aayo yu am solo li nga xamante ne nii moom lañuy leeralaat tey rek doogu dugg ci aaya bi nga xamante ne nii moom lañ fas yéene firi tey moom mooy mbokk yi gis nga jubboo nekk benn booloo egg na sax foo xamante ni nii ñàkk a wax dëgg muy fen li ko lislaam di bañ bañ yonent bi li mu koy tere tere ba bañ ko laajee ba xam ab jullit dina ragal mu ni waaw jullit dina nañ mu ni waaw luñ ko laaj mu ni waaw bañu ni ko ba xam ab jullit dina fen mu ni déedéet bu fekkee ci ñaar ñu xuloo wala famille yu xuloo islaam foofa sax maye na ñu ñàkk a wax dëgg pour rek ñu jubboo nettali nañ ci xadis ni yonent bi musul woyofal ñàkk a wax dëgg ba mu des ci ñaar ñu bëgg a jubboo ñaar ñu bëgg a jubbaale foofu islam may na la foo mën a jaar ba ñu jubboo nga def ko kon mbokk yi nañu booloo nekk benn féewaloo xiiroo ŋaayoo amul solo yàllaa ngi continuer ba tey ci suuratul xujuraat di wax aaya yu am solo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 mu daal ni leen laa yasxar qawmun min qawmin bu benn xeet toog di mokke ak a reetaan ak a xeeb baneen xeet séeréer bi bu mu xeeb olof bi di ko reetaan bi bu mu xool olof bi di ko reetaan olof bi yet bu mu xool waneen xeet wu mu bokkal dëkk bi jàpp ni moom moo ko gën di ko reetaan ak di ko di ko di ko fowe yàlla nee na loolu xajul ci am réew yàlla nee na loolu day tas am réew laa yasxar qawmun min qawmin wa kadalika ba ci biir yéen ñi bokk xeet bu kenn bokku fenn yaakaar ni moo gën kaneen bu ajoor bi jógee fële lébu bi xool ko yaakaar ni moo ko gën saalum saalum bi bu mu jàpp ni moo gën kaneen ku dul ab saalum saalum njàmbur njàmbur biir kazalika ñépp yàlla subhanahu wa taala daal nee na kon que yére bokk réew mi na ku nekk yem fa mu war a yem te bu mu xoole kaneen ku mu bokkalul aw xeet bëtub xeebeel mbaa bëtub ñaawal wala bëtub reetaan laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum yàlla ne man ngaa ni kii yaa ko gën fekk ni moo gën fuuf waaw waaw yàlla nee na pare man ngaa jàpp ni yaa gën kii bokkoo leen xeet yaa ko gën fekk ni kooku moom moo la gën yàlla daan ni nag wala nisaaun min nisaain asa an yakunna xayran na yàlla ne na jigéen ñi yéen tamit kazalika bu leen xool seen moroomum jigéen jàpp ni yéen ko gën mbokk yi lan moo tax yàlla wax ay xeet ba pare daal di préciser daal ni jigéen ñi parce que dafa bari ci ñoom ndeysaan jigéen ñi buñ demee ci xew yi diw de maa ko gën la ma sol du ko sol fa may egg moom mënu faa egg commencé xeebante côté boobu noonu affaire xeebante ci jigéen la ëppee waaw surtout wàllu solu wàllu ay askan wàllu ay nii ak naa moo tax yàlla bi mu waxee ci aaya bi wax ni aw xeet bu mu xeeb moroomu xeetam mu daan ni wala nisaaun min nisaain asa yakun na xayra min hunna bu wennu jigéen toog xool yeneen mbooloo mi jigéen di leen xeeb di leen reetaan yàlla subhanahu wa taala nee na wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum su ngeen bëggee kër gi am jàmm su ngeen bëggee koñ bi am jàmm su ngeen bëggee barabu liggéeyukaay yi am jàmm wala talmizu anfusakum bu leen di jëwante ci ay piis ak gémmiñ ak ay kobasante yooyu xajul ci kër xajul ci barabu liggéeyukaay xajul ci koñ jigéen romb solu ba jekk génn ngeen di kobasante ci suuf naan xoolal li mu sol moom la soloon démb moom de yërëm bi xam naa temps yi moom la diw bër bi loolu la ñuy wax kat xew xewu diw ba moom la soloon moom la solaat tey loolu dem na ba léegi ci biir société bi yaa gis jigéen moom tam day jënd yëre bu cher sol ko mais dootu ko mën a yaa gis ko ne nii yëre yi mu soloon ci xewam jeex na dootu ko solati parce que bu ko solee génn dañ koy reetaan dañ ko koy jëwee te yàlla xooleen wax wala talmizu anfusakum bu leen jëw seen bopp ndakate yow instant bi nga toogee di kobas kenn na ko xoolal diw instant boobu yow sa bopp nga koy def ndax bis dina ñëw ñu fay la ko wala talmizu anfusakum yàlla nee na it ba tey wala tanabazu bil alqaab yàlla nee na bu leen wutalante ay tur di ko jëwante ay tur yu ñaaw nga créer nit tur da nga gis ñu nekk ci biir kër ñu daal di créer wenn tur am ku ñu koy woowee ci kër gi te xamoo ko ñu ko koy jëwee yàlla neen loolu bu leen ko def muy benn wala tur woo xamante ne nii tur wu ñaaw la woon ca jamonoy ndaw ngeen dem ba màgg ngeen dem ba gëm yàlla dugg ci islaam bu leen ko wootanteeti tur yooyu yëpp baaxul yàlla subhaanahu wa taala nee na nit ku nekk na nga koy woowee turam na nga xool tur woowu gën a bëgg nga koy woowee waaye bul ko woowee tur ay tur yu ñaaw tur yoo xamante ne nii islaam daf koo bañ tur yoo xamante ne nii aada sax daf ko bañ yooyu yëpp yàlla subhaanahu wa taala tere na ko yàlla nee na bi sa lismul fusuqu ba'dal iman yàlla neen ginnaaw bi ngeen gëmee yàlla ba pare ginnaaw bi ngeen ne gëm ngeen yàlla gëm ngeen yonent bi salaa salaam loolu ñaaw na waay ñaaw na ngeen di wutalante ay tur ngir di ci jëwante ñaaw na ngeen di wowante ay tur yoo xamante ne tur yu jëf yu ñaaw la tur yoo xamante ne nii soo ko waxee nit ki rek xelam dem ci lu ñaaw loo xamante ne daana ko def ngeen ko koy woowe yaa ngi dégg yàlla leen loolu xajatu fi loolu amatul ginnaaw bi ngeen waxee gëm ngeen yàlla subhaanahu wa taala yàlla nag nee na wax naa ba pare de pare naa ci nag wa man lam yatub fa ulaayika humu zaalimun yàlla neen bu ngeen bëggee xam tooñkat yi dëgg bu ngeen bëggee xam ñi dàq tooñ ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ne nii parewuñu pour bàyyi yii ma fi tere parewuñu pour tuub dañoo pare pour continuer jàpp ni ñoom ñoo gën ku ñu gis ñoo la gën jàpp ni ku ñu romb rek ñoom ñoo la gën ku leen romb ñu jëw ku leen romb ñu xeeb yàlla nee na daal képp ko parewul pour tuub képp ku parewul pour changer koo gis nga yemale ko ak sa bopp jàpp ni gënoo ko ngëneel dëgg daal mooy ragal yàlla yàlla nee képp ko parewul pour bokku ci groupe googee xamal ni yow yaa ngi bokk ci tooñkat yi te bu ngeen bàyyee xel saar wala ñu jeexal muy suratu shura jàngoon nañ fa innahu la yuhibbu zalimin yàlla nee na bëgguma tooñkat mukk kon nag yow boo parewul pour changer xamal ni yaa ngi ca tooñkat ya yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala dafa dégg ak topp inchaa allahu rabbi desewaat nañ beneen jotaay ci suratul ci suratul xujuraat dinañ ci ñëwaat ak yéen lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhaanahu wa taala lu fi dëng ngeen jéggal ñu ko di jaajëfal ñi ñu àndaloon ci liggéey bi ak Reflect Studio nga xamante ne nii ñoom lépp lu jëm ci wàllu photo caméra audiovisuel lépp pare nañ pour liggéey ci ak yéen incha allah rabbi yàlla na yàlla jàppale ca kaw ca kanam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.